asalaamaaleykum mbokk Saint-Louis TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar di leen jox seen wàccuwaay ah, ñu ñëw fi nga xamante ne nag moom mooy teeru bi fekk suñu père suñu grand grand Doudou Diagne Diégo ko xam-xam ko ci làmb xam ko ci lépp loo xamante ni Sénégal bu fi yëngu danga nga ko ciy gis mu am taxawaay bu am solo ci biir dëkk bi muy émission sans détour ñu war waxtaan ak moom nag lu bari waxtaan moom ci wàllu wàllu làmb waxtaan ak moom ci wàllu li nga xamante ne mooy actualité politique lépp loo xamante amna am na si réew mi daan si ko waxtaanee tey maak moom mi ngi nii toog nag ma koy bàyyi mu nuyu mbokk internet saint TV yëpp di ko ziar di ko jox wàccuwaayam mais gannaaw Doudou Diagne Diégo maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar gannaaw di la jox sa wàccuwaay. maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu képp kuy nekk si internet bi ak ñi ñuy suivre di kontaan si yow gis nañ sa taxawaay si làmb ci ak si liggéeyu presse bi di la ñaanal jàmm di ko ñaanal Sénégal gépp di ñaanal réew mi jàmm yàlla may ñu wér gu yaram sutura yàlla may ñu taxawaay eh, di ñaanal ñi feebar nekk ci hôpital yi yàlla yëkkati leen ñi ci prison yi aussi yàlla jénne leen surtout nag suñu mbër mi fa nekk ba muy Lac de Guiers ñu ngi koy ñaanal yàlla jële ko fa delloo ko ci ay njabootam di ñaanal Sénégal jàmm ak salaam di ñaanal tamit nga meema ma jaale suñu xarit suñu soppee Gaston Mbengue di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana di ko jaale doomam makkan asan di ko jaale ay soxnaam di ko jaale ñëpp képp koo xam ne nii njabootam nga ñoom la koy jaal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana te tamit am na suñu benn mag bu génn àdduna muy Pape Mbodj nekkoon jaraaf ñëpp xam nañ ci dirigeant jaraaf la bokkoon maa ngi koy jaale waa Medina képp di yàlla yàlla ko yàlla xare àjjana di ko jaale duud waat bi nga xam ne xaritam la di ko jaale di ko jaale Sénégal yëpp di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yërëm mboolem jullit si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, comme ni ko waxee noonu rek dañuy jaalaat suñu Papa Gaston di ko jaale mag ak meg mi xam mooy doomam duñ duñ di ko wax ndax def na lu nekk si làmb def na nekk si réew mi di ko jaale di jaale mbokk yëpp di jaale tamit sama goro muy sama yaay soxna aussi di ko jaalaat famille bi di xamante ni euh, dafa génn àdduna moom it di tout la famille nga xamante ne ñooy famille Ndiaye famille Thiam di leen jaar ñoom ñëpp ak sa mbokk ba bu génn àdduna yal na leen yàlla yërëm te xare leen àjjana Pape Mbodj yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana waaw père gas euh, père père nag dañuy dugg si li nga xamante ne moom mooy waxtaanu làmb ndax waxtaanu làmb coow li daanaka bëri woon na lool mais fi nga xam fu may tàmbalee mooy si combat bi passé diggante ki nga xamante mooy Eumeu Sène Sa journée bu neexoon la bu jàll journée boo xamante ni macha allah keroog ñëpp a kontaan euh, mais tey ama seen daan na Sa Thiès mais ki nga xamante ne mooy Franc dafa taxaw tàllal ko loxo ama seen du bëreeg moom tàllal loxo ki xamante ne mooy Sa Thiès Sa Thiès ñu bëreeg moom mais tey moment bi ñu toll si làmb nii fi amateur yi daan toll bëgg combat yi nga xam ne mooy combat à chaud combat yi nga xam ne combat jànq la Franc laaj na ama seen mu ni du bëreeg moom laaj Sa Thiès mu ni du bëreeg moom loolu tey nga ko jàngatee ak looy wax ñi xamante ne mooy les internet ak amateurs yi nga ñoo bëgg waaw man ngi lay xam nga Eumeu Sène champion la waxoon naa ko combat am ak euh, Sa Thiès ma ne bu may jàmm tuuti Eumeu Sène rek Eumeu Sène dina ko daan jëlu boo xam ne kenn du ko wax te loolu aussi moo am parce que Sa mën naa ne bërëm keroog dañ ko téye ne ko taxawal wala kii parce que mbër mu mag booy bëreeg moom yow xale boo jàppee forme bu ko may fu mu réfléchir te Eumeu Sène ñëpp xam ne sampion la Sa Thiès tamit champion la wax dëgg yàlla tey Franc mu ngi ñëw parce que Franc tey Bombardier moo ko may sens mu daan ko ah, Eumeu Sène aussi war na ko may sens Sa Thiès aussi du jóge ci défaite demaat si Franc donc euh, waaye tey am na beneen mbër boo xam ne tamit dafa war a bëri mu Serigne Ndiaye ni war a dëkk boobu léegi moom it mbër yee ngi koy moytu te xam naa ne moom franc mos na ko daan waaye soxla na franc revanche tamit xam naa ne tamit Eumeu Sène it mën na ko may moom tamit sansam wala Sa Thiès parce que mbër yi war a bëri dafa am solo mais nag mbër aussi doo ko forcer na ko da ngay bëri kii par force des fois làmb mooy ni boole ne nag mbër mu mag la nag moom mooy xool ki nga xam ne war na ko mën a may sance mu bëri waaye nag dañ koy dañ leen di ñaan rek ñoom ñëpp nañ bàyyi nañ may xale yi ñu bëri ak ñoom comme ñoom ni leen seen mag ñi mayee ba ñu agsi fii loolu mooy doxal làmb ci mooy ouverture làmb ci yàgg naa ko wax ma ne mbëri nga xam ni ñu ngi bëri ñeenti yoon juróom yoon amul sens nañ may xale yi seen xale yu bëri ndax xale yi mën a fekki mag ñi tey gis nga poids lourd dañoo ñàkkoon ci kaw Franc ngi ñëw Reug Reug ñëw na yeneen mbër yaa ngi ñëw tey Serigne Ndiaye mu nga fa donc euh, tey gis nga Balla Gaye euh, Tapha Tine donc gis nga Modou Lo Modou Lo Siteu il faut ñuy mayante sens ñoom ñu mën a bëri loolu mooy yoon. waaw foofu sax balaa ma fay jàll parce que euh, comme ni nga waxee day gis ko xamante ni comme Franc dafa daan bombardier ñu dootul delluwaat ginnaaw comme Serigne Ndiaye comme ni nga xam ne Serigne Ndiaye war na mën a bëri Franc mais tey jii Franc dafa daan bombardier kon ku daan bombardier rek pour yow warutoo bëri waaw waaw waaw loolu noonu mais loolu noonu. parce que bombardier day dem retraite dafa may xale yi bëreeg ñoom pour dem bokkul ak ki nekk si làmb ji nekk si rang bi c'est pas tey bu doon Bombardier demul fenn fii ba suba du may franc revanche dañu waxante dëgg wala du ko may du ko may du ko may sens yàlla dogal nag mu war a dem muy may xale yi sens loolu may ko ko may na ko Reug Reug may ko franc comme tey mun na ko may Serigne Ndiaye wala moom may ko keneen donc lamb moo demee noonu daal. mais ñoo si kaw Serigne Ndiaye parce que Serigne Ndiaye aussi boobu léegi bi ngi entraîné daan na ki xamante ne mooy euh, Massène Junior ba mu daan Massène Junior ba léegi mu tul am combat te Serigne Ndiaye mbër la boo moo fa nekk euh, comme athlète moment bi ñu toll nii Gris mi ngi fa Gris de mi ngi fa Raglos mii fa mais Serigne Ndiaye dafa war a bari waaw Serigne Ndiaye dafa war a bëri xale la moo xam ne macha allah ku jël drapeau chef de l'État nekk champion d'Afrique yaa ngi dégg CEDEAO daa compétit tous les compétitions jàmbaar la bon gis nañ ne xale la boo xam ne mosul yàq làmb donc lañuy bon war na mën a bëri comme ni ñu doon waxee ñun ni ñu doon tafatin dafa war a bëree ni ñu doon waxee rëg-rëg dafa war a bëree ni ñu doon franc mi wax nañu ba sonn ne dafa war a bëri noonu la ñuy parce que xale yi il faut ñu bëri parce que mbër yi bu ñu feeñee loolu neexal làmb ji après day am si kaw day am ay combat yu neex voilà te combat yooyu mag ñi ñoo ko mën a gis ni war na mën ak toll kan ban mbër nga ko gis ni Serigne Ndiaye war na mën a bëri ma

parce que taftal na ay combat yu am solo combat yu neex ah, ah, ki nga xam mooy alburax euh, macha allah mu ngi dekkal làmb muy Baye Ndiaye mais ki nga xamante aussi mooy Makan muy mi ngi tëgg ay combat yu neex ah pour Fallou Ndiaye ñëpp ah macha allah ñu ngi tëgg ay combat mais tey jii boo ñëwee si nga xamante mooy ball gay Tapha Tine tey parce que ñëw na def signature nga gis signature bi tafaatin indi poids boo xamante ni dafa dafa dafa jégg dayoo bu ñëpp di ko coow Balla gay dem dindi graisse liggéey vivacité delluwaat ku ne delluwaat fa nga newoon Balla Gaye dellu France Tapha Tine dellu Côte d'Ivoire tey ñoom ñaar tàngal ca boobu ma mën ma mën a ma mën a expliquer combat boobu tey avant muy ñëw lan nga wax ak amateurs yi tamit lan lañ ci bëgg. xam nga combat boobu Tapha Tine xam nañ ne benn tubaab moo yor di ko entraîner Balla Gaye mu ngi INSEPS bu Paris Fall fa ne. ak Mouhamed Ndiaye Moudou Ali Ndiaye ñoo ñoo nekk foofu di ko entraîné euh, poids nag du dara si bëri keroog ba may wax Bombardier ndeysaan même si yàlla si mbéy géey da doon wax ne Balla Gaye 2 mënul daan mbéy euh, kii Bombardier may leen kii mun na ko laan parce que Bombardier doole bëriwul xel mooy bëri mu ne Balla laal yi rek la mën ku mën laal rek mënoo daan yàlla dogal mu ne woon Balla mi mën na daan la ñëpp ne tey lay làmb di tëj dina ko dóor ba mu dee gis nga ni mu demee kon ay poids yooyu amul sens tafaati na def si boppam ni doole bëriwul Balla Gaye tam na def si boppam ni bu mu wóolu boppam ne mu daanoon na ko rek da koy daanaat changement bu bëri mën na am parce que Tafa mu daanoon démb ak Tafa tey bokk encadrement bi duñ benn préparation bi duñ benn lekk yi mu lekk lekk ko fi du benn donc il faut mu xam loolu moom tamit heure bu Paris préparé bu ñëwee dina am ndam parce que dina taxaw physiquement ak tactiquement parce que ay professionnels ñoo ko yor tamit moom Modou préparation moom fa def gis na am na si ay résultats kon nag ku si nekk say supporters ak say amateurs nañu xam ne ku nekk mën nga daan sa morom. waaw mais combat boobu lan la ñuy xaar si ñaari mbër yi mooy amateurs yi des fois day toll foo xamante ni combat mën a nekk ko combat revanche mais ñëw combat ku ne di xaar di yoot ba combat bi nekk si loo xamante ni ba ne waaw loolu yow amateurs yi leen. Ah. xalaatu mu am ku toog di xaar. te xaar warul am parce que Tapha moo war a jël revanche kon combat bi lu mu si mën. waru waru may Balla gay di xaar mu nooy waru ko may parce que moom mooy jël revanche. bu jigéen maam dem si Balla gay nga foog ni loolu ban risque la si. fa am lu nekk te mën na fa bañ a am parce que ay bërikat lañu Balla mën na bëri mais tafaati dem na bëri. bu xeexee. xeex bi tamit ku ne mën nga si dóor sa morom mu daanu ku nekk tamit mën nga yóbbu sa morom artu waaw. boobu daal combat la waaw. merci beaucoup Père Doudou loolu leer na kon xam naa ni le 21 incha allah. après tabaski la mois de juillet mais nag ñëwagul mais nag xam naa combat bu neex ñëpp a ngi koy xaar. ko jàmm rek ñëpp ak tal ko si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais gis nañ fi aussi li nga xamante ni amoon na fi ki nga xamante ni mooy Mansour tëgg combat euh, Modou Lo ak Siteu mais ñu gis Balla Gaye aussi dañ doon tax ak moom ak Siteu ba coow li xaw a am si diggante Aziz Ndiaye ay Mansour ba daal ba ba masque maanaam mi ngi gën di leer sax keroog naan dañu gis li nga xamante ni moo ñu arrangé ñu dem jël li nga xam moo ñu arrangé mais comme combat promoteur yi nii xëccoo combat yi euh, Père Doudou euh, yéen ñi yéen nga xam ne yow yow nekk président des amateurs xam nga combat yi euh, choc yi nga xamante ni mais am ñu bëri ñaanaan combat Modou Lo Siteu ñorul woon yow loolu loo ci mën a tontu. non xam nga ku nekk day défense sa intérêt promoteurs yi. il faut ñoom it ñu xam ne bu leen kenn jaxase parce su ne yaa xam ni ngay daggee sa bopp yaa xam ni ngay tojee sa bopp ginnaaw làmb affaire combat ay intérêt la ku nekk da ngay xool li la arrangé ñoom bu ñu xoolee ne bëreeg Modou Lo moo leen gën a arrangé dem nañ da nga xam ne loolu moo leen arrangé Baye tamit bu xoolee ne. tëgg Balla Gaye Tapha moo ko arrangé mu def ko donc jarul polémique jarul wax bu bëri jaru xuloo jarul xeex ku nekk yàlla wërsëgal na la nga am combat danga ñaan sa yàlla sa combat sotteeg jàmm nga am si li nga si am làmb nag coow la àndal mais coow bi day jeex parce que combat yi bu xësee taxaw rek coow li jeex na parce que koy xëccoo ba koy taxaw ba régulariser CNG def naa ne combat yi jeex na waaw loolu am sax combat nag tant que demul CNG sotteeku. parce que gis nga nit ah, manager mën na jël avance mbër dem ba benn instant gis leen lu ko arrangé mu delloo avance bi loolu c'est possible. waaw mais na fekk rek tant que daal combat euh, demul CNG parce que souvent dañuy waxtaan ba pare waa ji di jox la avance nee na dama lay complété bés ba ñu matul nga delloo ko xaalisam dem uti beneen combat yooyu yëpp day am moo tax làmb tant que demul CNG. taxaw. waaw ñu ñëwaat si beneen coow euh, Père du parce que wax ji leer na parce que amateurs yi soxla xam nga ko combat yi aussi yu ñu tëgg xam nga leen ko wax ji leer na léegi dañuy dem si benn affaire boo xam ne daf fi amoon muy coow Aziz Ndiaye wax si benn problème mu couronne le des arènes wax couronne des empereurs day funtoon nii couronne boobu nag indi na fi coow polémique bu rëy. ba camp yi camp Modou Lo xam mooy ngi tontu Modou si moom tontu na ci waa kër Modou ci am na supporters yoo xamante ne loolu neexu leen couronne des empereurs bi Aziz koy def parce que fii benn couronne fa muy nga ko xam nga dafa am euh, li ñuy wax rek jamono ji ñu ne ku nekk dafa am luy sa wàll roi des arènes Manga 2 moo daal Mor Faram nekk mu yor ko fi ma 10 ans daanuwul ne day bàyyi bëri bàyyi bëri ñëwaat Tyson daan ko ñëpp ne Tyson mooy roi des arènes roi des arènes CNG di si juum ñu fi nekkoon parce que bi Manga ne day def ci bile ba di bëriwaat dañ ko waroon wax te ngay teg drapeau bi bu ko Tyson daane nekk roi des arènes ku daan Tyson ëllëg yaay roi des arènes loolu lañ ko waroon defee. mais defuñu loolu donc ñu dem ne Tyson mooy roi des arènes Yékini ñu ñu ne Yékini non ñu ne Bombardier Bombardier ñu ne Yékini ñu ne Balla Gaye ñu ne Eumeu Sène ñu ne Bombardier Eumeu Sène ñëw jël ko si Bombardier Modou Lô ñëw jël ko si Eumeu Sène léegi Eumeu moom la ñuy wax roi des euh, Modou doo la ñuy wax roi des arènes muy du wóor leneen nag buñ ko buggee def CNG moo am doole jooju CNG mooy jël ne man kat léegi damay teg juróomi mbër wala juróom benn mbër tournoi ku daan ku daan daan ñëpp yaay roi ba keroog kenn nit daan la loolu CNG moo ko mën organiser waaw. waaw sunu papa Bira Sène wax na ci. ne ni couronne euh, roi des arènes tour la nii rek bu ñu teg mais mais mais exigé wul. mais la kon nag moom mi nga xamante ne leeral na loolu tey kon couronne bi nga xamante ne mu Aziz Ndiaye moom la teg muy couronne des empereurs loolu mu teg noonu euh, bon loolu loolu ban façon ban façon ban façon euh, jàngal nga ci am quoi parce que comme couronne des rois des saints ak des empereurs bokk nga xam ne mooy président CNG da nga ko waroon nekk Aziz Ndiaye mi bëgg a teg couronne bi loo si xam nga moom dina la wax ne la soit ñoom Aziz Ndiaye waru organiser couronne bi wala nangam wala nangam kooku bira seen ngay jàll ak question boobu parce que moom mooy président CNG ñoom lañ dénk làmb ci xam dina Papa Bira Sène mi ngi may dégg dinaa ko jël waxtaan seeg moom euh, mu leeral couronne parce que coow li bëri na mais tey ji euh, père aussi duñu jàll te demuñu dem ci combat démb bi combat njar ndem la woon combat xamante ni moom jàll na fi muy combat euh, gladiateur muy diggante Lagrose ak xamante ne moom mooy Jackson mais avant may agsi Lagrose Jackson Jackson bëri na ak ki nga xamante mooy Pape Ndoye muy rakam bëri ko daan ko avec la manière daal ko dóor ko ay coup ba ba mu daw mu pak mu plaqué ko ànd ak moom mu àgg àgg suuf mais kii Lac Rose dafa ñëw jël revanche ak ki xamante ne mooy rakam dem gis na rakam Pam Ndoye toog si plateau bi ni man kontaan naa tey bu ñuy bëreet ma ak yow bu dee bu dee benn ndam la fii ba muy bàyyi bëre yàlla nga koy am ça veut dire mooy fayul nga ma sama xol sedd na mais kii Jackson dem nu mu bëree ak ak Lac Rose aussi am signature Gris ak ki nga xamante ne moom mooy doomu dàngu doon sax dañ ci waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, Pam Doy Thiatou Daouda Fall Lac Rose ñëw bëri ak Jackson te face bu ñuy toll fii euh, si si si làmb damay gis chaque jour bu nu amee combat mel nii dañ koy gagné yu si ëpp duñ ko perte. waaw xam nga combat bi waroon na am bu yàgg mais face nangul woon Lac Rose bëri nangul woon Gris Bordeaux bëri parce que am entraîné wu face ku fa entraîné wu doo jël avance vraiment seen règlement dafa wóor ñoom écrit bi képp koo xam ne doo entraîné doo jël avance da ngay mën di entraîné bu avance jotee ñoom ñooy xool technique bi euh, ñooy xool ndax yow war nga jël avance wala waroo jël avance parce que loolu tamit dafa baax si écrit donc bu ñu xoolee ne Lac bi warul bëri dañoo taxaw ne ko doo bëri comme nag Lac Rose ne ko doo bëri mu entraîné ñëw. Jackson waroon na xam ne Lac Rose mii indi na entraînement moom mooy xale nag boo dóoree mag ba mu jël coup doo dem da ngay taxaw xaar ko xool lan mooy am mais bi mu ne day jël coup bëgg ko bëgg ko xar jëppal xaw ma lan la doon def Lac dafa déplacé rek mu topp ko bàyyi ko mu dëpp parce que boobu dooleem yëpp dem na amatul appui donc songom bi dara baaxu si waaw parce que nit booy song da ngay song la jege mais ku la sori booy yootu yóotu ak song du benn yootu mooy da ngay teg sa loxo pour jàpp nit ki bu rasoo rek nga nga dem bu dee song nag mën mën nga dem mais moom da doon loolu tax nag Lac Rose rasu mu mu mu mu daanu. boo xoolee gañoon na ko am daanaka du Lac Rose jël na ay coups yu méttee nee na man jël naa coup parce que moom boo su bi bëggu toujours nag moom parce que mbër. di fa ñu jàngal la ngay suivre adversaire boo dóoree nit ki déplacé na wala déplacé wu wala coup bi jël na ko wàññi na ko wala wàññiwu ko yooyu yëpp danga ko war a xam mais xale ñoom dañuy xeex rek du ñu xool voilà. bu ñëwee si Grida Grida bëri nag doomu dàngu Grida na ay yës bëriwul mu ñëw jël xamante ni moom mooy adversaire muy muy muy doomu dàngu te gride daana doomu dàngu tey ëllëgu Grida lan la war a doon. waaw Grida moom ñëpp xam nañ ne mbër la dëgg yàlla muy góorgóorlu. ki ko daan tamit mbër la parce que tey ku ku rëg-rëg daan <laughs> du ne mënoo bëri donc nag moom mbër la dañuy ñaan rek mu continuer action am euh, mu ngi si ji ah, bëri parce que aussi vraiment sa mag di bëri nga bëri ngay nekk mbër tamit dafa am solo te mu ngi gol daal di am solo rek mooy làmb ji moom làmb ñëpp la ku si respecté ko mën nga si am teraanga waaye nag mbër du xool teraangaam rek day xool supporter am moo tax mbër war a am fulla entraîné xool amateur yi li ñuy daj si yow nga mën a dem bëri boo daanoo ñoo xam ne da war a daanu mais mbër boo xam ne préparé woo defoo dara ñëw daanu say amateur di mer loolu du yoon parce que amateur bi dafa am bànneex si yow bànneex boobu yooyu yàq ko mën a may waaw. samedi passé Fouta production euh, tëgg na combat bu neex aussi diggante Thiatou Daouda Fall ak ki nga ne moom mooy Pape Ndoye Thiat Daouda Fall xale bi nañ ko bàyyi xel parce que gis nañ mi ngi ravagé mi ngi mi ngi daan ay ay moromam te mi ngi mi ngi ñëw pam Ndoye moom tamit ndaanaan la bëri na fii bëree bu mucc ay amoon ndam ñëw tey mu am defet mais tey ki nga xamante ne mooy Thiat Daouda Fall aussi euh, loo gis ni xale bi war na mën a am combat parce que léegi xale bu daan daan ci kaw laa xam nga bu ñu nekk Thiatou si waalo dóor na fi ñu bëri ñu daanu. bërëkat la woon xeexkat la woon mosul dellu gannaaw kon kooku caatam war na am fulla am fayda parce que boo ne caatu euh, caatu daaw dafa rek dara la champion la woon ma dëgg yàlla ba muy bëri kenn yabu ko woon mbër la woon xeexkat la woon bërikat la woon maa ñaan yàlla yàlla ko yàlla xaar àjjana kon nag ku noonu macha allah Pape Ndoye nag bëre la rek keroog daan na mu ñëw ñu daan ko na gën a entraîné gën a defarwaat xam ji xale la bu dara ma xamal dem seen kër leen di say dem waaw am solo bul découragé. waaw tey ñu si actualité boo xool actualité jaar na fi li nga sunu sunu frère sunu mbokk muy Lac de 2 am ndog-ndog am tolof tolof bu caabi feelu ko ginnaaw si ay problème mu visa pour yóbbu ay ñuy tukki moom si ay ay ay jafe-jafe bu ñu téye ko keroog def na point de presse fi nga xamante ne mooy arène national mais dégg na fa ñu mu bu ñëwee gis nañu fa euh, waa écurie Guédiawaye écurie Waalo mbëru Guédiawaye bëri ñëw nañ fa mais ama neex ñëw na fa aussi ñu bëri ñëw na fa mais dañ fa dégg ay wax yoo xam ne dañuy gis ñu ñu jàppale Lac de Guiers wax nañ sax nee na ba tudd si CNG ni CNG pourquoi gis ñu fi waa CNG gisuñu jàppale Lac de Guiers kon Lac de Guiers fu ñu toll nii li nga xamante ni euh, dal na ko ban message nga lancé ak ban ban ban ban parole nga ci nga ci wax pour euh, bu ko déggee mu xam ni euh, lii am na solo ci moom. waaw maa ngi lay nuyu ci wax boobu di gërëm jaw Aliou Diaw xam ne amateur la bokk di sama porte-parole déglu nako ko di nuyu ñoom liiru jaan ñoom a neex képp koo xam ne taxaw nga rek pour di ko taxaw di gërëm waa Géejawaay yëpp képp koo xam ne aussi yaa ngi koy jàppale di leen si gërëm di sant nit loolu rek la am sa mbokk la nga taxaw jàppale ko li si nekk nag mooy il faut ñu bàyyi tooñ CNG parce que CNG tamit yoonam nekku si lii du problème mu làmb problème vie privée la nit ki nit kee dem fële régler benn affaire am si problème ñoom mun nañ bind CNG nekk ñun dañuy demande ay ndimbal kon CNG dañ lay demande ndimbal ci kaw la de bi parce que xaalis bi dañuy dajale pour yóbbulu pour fayal ko CNG mën na leen recevoir wax si xalaatam jëkkati li nga xam moom la leen dimbale jox leen ko mais CNG du dem si ay conférence de presse di taxaw loolu du yoon du yoon loolu du yoon nañu wax di dëgg dëgg moom nag yàlla rek ko moom ñoom mun nañ woo CNG bu dee dafa am collectif boo xam ne ñoom la ay nit tànn ne ñii ñoo war a dajale xaalis bi ñu dem seeti CNG demandé ko ndimbal si loolu seeti ñeneen tamit mun nañ seeti bureau de ménagers seeti ñeneen ñu ne ah ñun de dañuy jóg pour demander ndimbal ku nekk am loo si joxe joxe sa wàll du dëgg mais pas ngay def conférence de presse conférence de ñi nga xam ne yéenay def dara bëgg a wax si nit ki yéenay def conférence de presse CNG lan la fay wut. na leen sax salle bi. waaw mun na leen abal saal mais du yoon ñoom ñu toog fa yéen nag boo leen pare yéen war a wax CNG ñu ngi lay tàllal loxo nga jàppale ñu si mbir mi ut loo si def dañ la bind wax yow wala ñu dañ la seet si woo Bira Sène seeti ko def benn délégation Bira Sène xool ni mu si mën mu def ko wala waxtaan ak bureau CNG ñu ne ah nañ génnee nangam jàppale ko ko. foofu ñoom dañoo juum. ah xaw ma dañoo jum de man sama xalaat laa wax xaw ma nag ñoom nañ ko xalaatee yaa ngi dégg ñoom ni ñu war a def mooy woo Bira Sène seeti ko Bira bu ñu waxtaanee ak Bira Sène wala Bira Sène jox leen rendez-vous bureau CNG ñu ñëw bureau CNG yëpp toog ñu wax CNG xool liñ si mën jox leen jàppale ko si. ki mën ne Bébé Saloum ak Ama Neex ni waa Géejawaay euh, du yoon ñu ñëw gis ñu fi ñu bëre gis ñu fi ñu bëri ñëw jàppale ki nga xam ne mooy Lac de Guiers ba ama neex na moom ànd bi waa Guédiawaye ànd moom jaaxal na ko Bébé Saloum wax na ko ki nga xamante ne moom mooy ama neex wax na ko Sa Thiès tamit nee na moom képp ku mu xam dana si dana ci wax pour mu jàpp ci ko loolu boo déggee loolu yow wax jooju loolu maanaam comme Lac de Guiers mi ngi ci euh, caabe feet na ginnaaw fu mu toll nii mënu lu bëri tey ban conseil lay doon man conseil bi may def ñun ñu si ñun niñ siy dox liñ si war a dox mais liñ si war a dox duñ dem télévision yi di ko wax wala leneen mais ñu ngi def li ñu war a def daal mais li am solo xaalis buñ ko dajale dañ ko war a jenc après ñu toog ak plaignant yi ku nekk bu dee deux millions la ñu ne ñu waxtaan ak yow ne la mën nañ la jox un million nga retirer sa plainte nga ne d'accord nga def décharge photocopie ñu teg ut keneen ut keneen ba mu mat ku nekk ñu am lu ñu la avance parce que xamal leen ne xaalis bi fi ne mënuñu jox ñëpp parce que tey Balla Gaye Lac de nekk kaso arrangé wul ñu mu ameel xaalis du dëgg comme que moom waa jëlee nee nañu moom la daw na moom lañ gis mën nañ def dara ñaan liberté provisoire ñu bàyyi ko mu dem mais xaalis boo ko jëlee yóbbu ko caisse de dépôt du neex a parce que procédure bi ngay def bu jël xaalis bi day yàgg comme que lii xaalis la boo xam ne dañ ko war a def il faut ñu waxtaan ak plaignant yi parce que lii du dossier boo xam ne président dara mën na si dara wala ministre de la justice mën na plaignant yi ñoo la fa mën a jénnee il faut ñu woo plaignant yi di waxtaan ak ñoom par benn benn ñu nangu jël dara. ñu signé ko bu ñu signé PV yëpp ba mu jeex ñoom yëpp aussi juge bi ne ko ñun ñëpp li lañ d'accord mun nañ ko ñun retiré nañ suñu plainte juge bi aussi dina def ordonnance pour xaalis boobu ñëw ku nekk ñu seddale ko ku si nekk la nga si war a am ñu jox la ko en attendant ñu bàyyi ko mu jël loolu mooy solution bi. loolu solution bi ko ñu ngi si fin émission sans détour bi ah, di wax ni balaa ñuy jeexal rek dañuy wax si actualité bi nga xam ne moo am si réew mi baax bi nga xamante ni yoon da ko teg loxo moom it eh, am ay kàddu yu muy doon wax si président wax si Ousmane Sonko ba tey mi ngi taxaw ba léegi kenn xamagul fa la fa la féete et ñu gis aussi weekend passé ki nga xamante ni mooy le président Diomaye Diakhar Faye dem woote set setal moom pour ñu setal dëkk bi Ousmane Sonko dem Sangalkam yooyu yëpp ah, mbirum taw mi inondation yëpp wax nañ si kon tey euh, ñu tënk foofu rek euh, euh, grand du Diagne li nga xamante ni actualité bi nga xam ne am na noonu am na si réew mi muy président woote set setal baax jaxate aussi gis ni wax na ba jaabi fett ko ginnaaw waaw xam nga set setal bi baax na trop ñu si gërëm président ak premier ministre mais mun na gën a yaatu li tax mu gën a yaatu mooy président day jël gouverneur ak préfet ak maire ak surtout les délégués quartier et les chefs de quartier surtout nak les ASC nawetaan ak yooyu yëpp ñu waxtaan waxtaan ak tous les quartiers ak chef de village ak ñep dal waxtaan bobu nak ASC yeeg ñep dañ jenn chaque fin du ba ñu wax date bi ñu jenn Dakar fépp gis seen bopp surtout les ASC nawetaan set setal yi fi daan am ASC yi la woon ak les délégués quartier les gouverneurs et les préfets chef de quartier parce que ñoom ñooy wax quartier yi nañ génn nawetaan yi ñooy waxtaan ak ASC yi les supporters tout ñëpp génn ñuy def set setal peinturaat tali yi euh, defar euh, tali bi defal euh, trottoir yi tout ça. ak canal yi yooyu yëpp ay jénn ñu indi râteau ñu indi brouette maire yi jën maire yi jénnee budget jënd ay brouette indi maire maire yu bëri am nañu ay brouette am nañu ay am nañu ay râteau am nañu ay pelle ñëpp ak indi ñun dañ loolu lañ daan gis ñun suñu yaay yi jël seen bale ñëpp jénn même 4 avril 4 avril am yooyu après ñu foo xale yi xale yi ñu utal leen ay cadeau ñu defar loo xam ne vraiment ñëpp dañu gis seen bopp bon kii jaxate bi nga wax comme ni ma daan wax Macky Sall rek laa laay wax Ousmane Sonko ak ak Diomaye mooy nit ñi ñoo xaj si yéen yéen xaju si nit ki du réew boo dee kilifa da ngay yërmande da ngay ànd ak yërmande ñun loolu lañ leen wax Macky Sall mii di ko xamal ne ko yaay président de la république yaa yor police yor fépp koo bëgg tey du yeewu këram du du fa yeewu waaye yàlla yow la fi teg del jéggale suñu borom mii day jéggale tabax si baa ngi ñëw nañ ko jéggal mu dem tabax si ak njabootam te yàlla rek a tax ak ñu mel ni ñoom xam ne ñoom ñooy ut nguur ñoom ñoo ut nguur dinañ dégg lu ne te dégguñu dara sax parce que li Macky Sall dégg ak Ablaye Wade ñoom déggaguñ ko kon ñoom nañu jéggale te yàlla tax jéggal ko te yàlla tax ndax mu mën a tabax si si waa këram loolu laa koy ñaan loolu laa ni ñaan nañ ko jéggal te yàlla tax bàyyi ko mu dem ndax mu mun a tabax si moo ak imaam Ndaw nañ leen baal te yàlla tax dañ leen baal te yàlla tax ñoom ñu dellu seen njaboot xam ne ñoom la ñu war a attaqué yaa ngi nañ leen jéggal loolu rek laa ñaan nañ leen jéggal te yàlla tax waaw merci euh, Père Doudou Diagne euh, wax ci rafet na comme ni ko ni ko ni ko fi nga daaneel fa laay tëjee parce que ku ne parent nga bëgg nga euh, tabaski ak sa njaboot waaye nag yàlla na yàlla def jàmm si réew mi et fu ñuy tëjee rek ma nga tàggoo si li nga xamante ne mooy xaru tabaski yi toll nii gars yi parents bëri ñi ngi ñi ngi ñi ngi xalaat xaru tabaski fu ñu toll nii gars yi bëri na xaru tabaski dina ñëw du ñëw mais nag pour daral xel yi parent yi amagul xar ak xar mi xam mooy ministre des élevages fan la xar yi toll ak ni ñëwee ñu ubbi frontières yi bàyyi yi nga xamante ne mooy frais yi ñu doon frais pour ñëw kon loolu moo tax xar tabaski daan daan cher mais bëgg nañ nag ñu bàyyi xar yi ñëw njaboot parents yëpp ku ne am xar tabaski. waaw macha allah ministre bi keroog wax na ko nee na demoon na Mauritanie dem na Mali waxtaan ak ñoom pour rek yoon yu ñu yombalal leen ko ñu indi xar yi kon incha allah dañuy ñaan yàlla xar yomb. yàlla may ñu wërsëg ku nekk sa poos ku am tamit lu ëpp xar nga dimbali sa morom bu amul te yàlla tax yàlla nañu yàlla may xolu joxe may ñu xolu séddale may ñu xolu ndimbalante si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. waaw mi ngi noonu émission sans détour la woon ak sunu père Diagne Diego wax ji rafet na ñu ngi koy jaajëfal bu baax euh, di wax ni yàlla na fi yàggatu wér sunu grand bu baax la sunu per bu baax la waaw ñu yàgg fi ñu ñëpp ak sunu parents yeeg tout ça di wax ni émission sans détour la woon si biir Sen News TV di ziar sunu bokk internet yi di ziar régie di ziar sama doomu day cameraman Junior Fall ñu naan di ko bëggee di képp ku ñu seen Sen News TV déjà tout le monde rek ñu ngi leen di ziar di leen bëggee di wax yàlla si réew mi soble xartum comme ni ko gars yi di waxee rek ak fekkee ak tal ak wér si barke Seydina Ahmad yàlla na ko yàlla def merci beaucoup lii la woon si fi nga xamoon ni nga nekkoon si teeru bi ak sunu père Doudou Diagne Diégo si émission sans détour jërëjëf ba benn yoon incha allah. nationale